dans le milieu professionnel burn-out moom milieu professionnel comme ñun wala yéen la mën dal mais bu ay élèves au niveau scolaire wala euh, waaye au niveau scolaire on parlera pas forcément de burn-out mais mën nekk un surmenage intellectuel boo xam ne day dal ñëpp surmenage intellectuel des fois dama lay tooñ ne université bi ñu nekkee période d'examen bañ pare y beaucoup de patients qu'on reçoit qui viennent des universités parce que bon nit ñi parrainage auquel ils se sont sur un benn délai bu ndaw nga bëgg a def loo xam ne sa xel antanu ko moo tax loolu la plupart temps am na benn cellule sax bu état yi boo yàgg na ah, mooy les KOSP là les cellules d'accueil et d'orientation scolaire professionnelle loolu day permettre ñu orienter élèves yi si les méthodes d'apprentissage xamal na nan nañu war a seen santé ak seen hygiène de vie ba yenn période échéance yi nga xam ne c'est importante nga xam ne ils vont ils vont bien se préparer à l'examen sans pour autant avoir des risques de perturbation de leur santé mentale. D'accord, très bien aujourd'hui euh, euh, ndax euh, nu mu tuddati sax koo xamante ne dafa am feebaru xel. tout le temps dañuy gis ni suñ ko yóbboo hôpital que mu nekk hôpital Fann dalal xel et cetera et cetera luñ leen di njëkk bindal mooy ay lu muy nelawee. nelaw boobu lan la mën a def si si si thérapie ñi nga xam ne dañoo am feebar xam parce que am na ñoo xamante ni dañoo xaw a agressif am ñoo xamante ni agressif ñu mais du ñu lekk du ñu naan mm. dañuy wax rek am ñoo xamante ni xëy na ñi ngi def yeneen yoo xamante ni il faut ñu toog calme mm. am ñoo xam ne nag dañuy calme mais du ñu nelaw mm. par par exemple ñi nga xam dañuy def surmen surmenage mën nañ toog trois nuits ou quatre nuits yoo xam ni ñu ngi naan café di naan CAC 1000 juste pour mën a assimiler seen cours yeeg et cetera et loolu nag bu leen demee ba lan moo tax à chaque fois li ngeen di njëkk faje mooy que patient bi euh, euh, mën a mën a mën a nelaw mën a dal. Hmm. question bi dafa am solo trop parce que dafay wax dafay dafay régler ça en partie nit ñi conception bi ñu am ci traitement maladie psychiatrique bi parce que li ñu war a comprendre mooy euh, la première partie question bi boo gisee ñi nga xam ne dañoo am feebaru xel boo xam ne versant ñu tàqali ko ak seen xel la la plupart dañuy ay symptômes yoo xam ne day déranger comme ni nga ko waxee fii symptômes yu bëri na léegi souvent daa euh, am benn kii benn ferñeent bi ñuy wooyee la dopamine dopamine dañoo seetlu ni que études yi dafa wane ni ki bu nekkee dans une psychose mais feebar yoo xam ne dafa tàqaloo xelam day nekk en hypersécrétion day bëri ci ci ci cellules nerveuses yi mi ngi mel ni nga ne ko am diabète su bi bëri na ci deret bi mm-hmm. donc loolu xam na booy traité diabète mm-hmm. forcément da ngay joxe traitement boo xam ne day wàccee suukar bi ba stabiliser ko léegi nag bu fekkee jabe bi dafa andi yeneen conséquence ci yaram bi moo xam ne des fois dañ naan day am ay douleur nerf ak yooyu yëpp da nga koy symptômes yooyu itam da nga donte yaa ngi faj suukar bi ndax suukar bi mooy feebar bi donc maladie psychiatrique psychose itam noonu la hypersécrétion de dopamine boobu dafa am garab yoo xam ne mooy delloo dopamine bi ci taux normal am léegi nag bu lay bu koy delloo ci taux normal dafa bokk ci ay FM effet secondaire yi maanaam daal nit ki da ciy bokk day nelaw bu amoon agressivité day mel ne yaram bi dañ ko njat lool ci effet wu garab bi la bokk mais effet principal mooy day faj feebar bi parce que feebar bi nekk ci biir daa lu mu def ferñeent yoo xam ne dafa perturber fonctionnement yooyu yëpp ay effet secondaire ñu mm. tuddee ñun ay effet euh, extra pyramidaux mm. des fois mun nga yeewu sa làmmiñ bi gonflé wala bët yi aju wala yuut bi bëri wala yaram bi mel ne lu gaynde yooyu yëpp dañ koy expliquer famille bi xamal ni que lii ay signes yu am la mën am xam yenn nit yi duñ am parce que c'est des effets secondaires mën na am ko mën na bañ a am d'accord nag feebar bi nag fondamentalement garab bi loolu lay faj léegi su fekkee tam feebar dafa ànd ak ñàkk nelaw comme ni nga ko waxee la plupart nag ñoom duñ nelaw mën nañ toog un duñ nelaw am yaa ngi quatre am ñoom dañuy toog un presque duñ nelaw donc il faut kooku nga rétablir cycle sommeil am normalement donc di jox garab boo ne tamit day faj carrément sommeil bi pour sommeil bi rétablir mais du sommeil bi ngay faj li tax sommeil bi installé wu mooy trouble euh, psychotique bi nekkoon ci xel bi ba nga xam ne moo perturbé fonctionnement wu Euh, cerveau am loolu ngay garabam la mooy faj réellement feebar parce que ba bu demee bay génn ba stable garabam daanaka moom ngay continuer parce que moom mooy faj feebar bi ci des yëpp ay symptômes yoo xam ne feebar moo ko engendré woon voilà loolu tax la plupart temps bu ñu ñëwee euh, première dose yi day day mën na forte ci ñoom mm-hmm. parce que fekkee koo xam ne musukaat jël boo ko jëlee mën na mën na forte ci moom ba tax ay effets secondaires am mm-hmm. nelaw bi bëri te nelaw bi tamit c'est capital parce que il faut cerveau bi reposer wu mm-hmm. pour mu mën a réorganiser information yi disparatoon quoi. choc psychologique euh, euh, nan nan ngeen ko mën a fajee ba rétablir le patient ou bien la patiente à distance par exemple ndax aussi dafay soxla euh, muy nelaw moom tam euh, parce que y a des chocs yoo xamante ni yenn saa yi mën na la jàpp façon jàpp boo xamante ni tu peux réagir ci ay façon yoo xamante ni xëy na dina jaaxal say mbokk mm-hmm. mais bu boobaa ñoom dañ koy cofantal dañuy jàpp ne rek lii kii de lii moo tax mu def lii mais dina bàyyi dina bàyyi rek ngay dégg ou bien ñu dem à la pharmacie jëndal la garabu nelaw boo xam ne dina la permettre juste nga tëdd nelaw wala ñu ni la dëgg dafa stressé bu tëddee nelaw tuuti rek après après dina dal ci ban timing peut-être la ñu mën a jàpp ni ñooñu mën nañ leen faj bi nga xamante ni euh, du du ñu mujjee tàqalikook seen sago ba ñu indi leen mm-hmm. euh, fi nga xam ne mooy hôpital bon bu dee choc psychologique moom xam rek des fois nit ki ci boppam nga càmbar ko day am solo parce que choc bi bu nekkul day dal nit ki rek mu affecté ko te fekk nit ki amul ay prédisposition yu yu nekkoon ci moom yu waral ni ko choc bu ñëwee dina ko affecté parce que choc même choc bi mën na la dal yow du la def dara nga gérer ko quoi xam ne que choc la mais pourquoi muy sonal kële souvent la plupart du temps bu amee rek xam nga ni que nit ki amoon ay prédisposition mentale yu ko waraloon ni que amee tel choc lii mën na ko moo tax souvent bu ñuy évaluer patient yooyu genre yooyu nga xam ne famille sax dañ koy soofatal ni ah, dal moo mm-hmm. en réalité am xamoo yan xamoo yan euh, trouble émotionnel am yu ko mën affecté moo tax bu ñuy évaluer nit ki nga xam ne moom moo moo ko anti mm-hmm. mais dañuy évaluer lu ëpp ci moom li nga xam ne xëy na moom sax bàyyi ko woon xel ci boppam le fekk que mu lay nga koy déglu di ko posé yenn question si ngay xam ne kii souvent sax ban personnalité la am am na yenn personnalité yi boo ko amee il faut ñu traite ay personnalité pathologique lañ ko tuddee si ñun am na personnalité normale mais à côté am na dix personnalités yoo xam ne c'est pathologique dix personnalités yi bëri na quoi c'est des personnalités de euh, en fait kii la trois clusters ay clusters mooy ay groupe dafa am cluster A B cluster C premier groupe de personnalité bi quatre troisième bi mais personnalité yëpp ko ci nit déjà loolu feebar bu ñu war a traité la parce que day tax par exemple yi ma la gën a mun jox bi nga xam ne moom moo gën a répandu wala ñi nga xam da ngay dégg ñuy wax les psychopathes xam nga psychopathe nii dañ naan ah, kii psychopathe la mm. fekk euh, chez nous un psychopathe c'est un trouble de la personnalité psychopathique boo xam ne nit ki mooy mooy tax yenn comportement bi ñu gisee ci mu naan kii est-ce que parce que day ay ah, voilà day sadi voilà day sadique di def ay actes yoo xam ne c'est des actes médico-légaux ay actes antisociaux mën na rey mooy ñoom ñi mën nañu rey nit mm-hmm. te fekk duñ ko jàppee dara mais loolu trouble de la personnalité buy installé wu ci nit ki la parce que am na ay yu bëri souvent yi koy waral bi mu parce que ñu bi ñuy faj malade dañuy commencer même avant moo judd ah bu ñuy deful dossier patient dañuy évaluer même les parents est-ce que par exemple yéen bi ngeen di marié mariage forcé la est-ce que mariage arrangé la woon est-ce que mariage consentant la est-ce que grossesse bi jur patient bi grossesse boobu grossesse bu mu bu boo leen désiré woo leen boo leen préparé wala par exemple na mère xam ne patient bi dafa judd ci viol est-ce que sa yaay par exemple dañ ko violé woon si yow si yow nga judd donc facteurs yu yëpp am na facteur ñu li ñuy tuddee psychopathologie mais permettre nga comprendre installation maladie yooyu yëpp dañ koy évaluer ba xam kii lu tax feebar bi egg si nii mu demee nii donc yooyu yëpp boo koy faj dañ koy bàyyi xel ci nit psychopathe trouble a traité ko traité nag mën na stable parce que trouble personnalité moom ci nit ki lay nekk mais bu ñu ko diagnostiqué wul duñ ko traité moo tax mais est-ce qu'il y a des personnes yoo xam ne nii ils ont ces troubles mais ils arrivent quand même à vivre avec ça à gérer avec ça peut-être en faisant une introspection xoolaat seen bopp par rapport ak trouble personnalité tax ma wax la ko sax c'est parce que dafay dañ koy gis mhm. donc on les on les voit dix troubles yooyu mooy gis yëpp dañ koy gis donc même patient mën nañ ko hospitaliser pour une autre comme maladie boo xam ne dafa tàqali ko xelam mais bu demee ba rétablir booy évaluer personnalité bi nga gis personnalité boobu nag mën na nekk benn facteur de vulnérabilité chez cette personne boo xam ne da koy fragiliser donc bu bu bu bu yenn événement yi dalee sax même yenn événement yi mën na la bañ a dal ah. quand c'est génétique mënoo si dara à tout moment affaire yi mën na la dal par exemple mi ngi mel ni nga euh, génétique mën na dal kenn bu lay dal nekkul yaa ko tey donc c'est génétique donc noonu lay demee donc la plupart du temps toute personnalité yi nit ñi dañuy dund ak moom ah. mais c'est juste que des fois dans l'histoire de la du per de la personne dañuy gis ni que famille bi dañuy rapporter ah c'est vrai que des fois nag bu daan yenn événement yi di am nii la daan réagir comportement am des fois day exagéré kenn du comprendre mais ça c'est des choses qu'il faut pas négliger voilà moo tax nit ki bu ko gisee même nit ki sax moom intérieurement boo ko interroger quand il est stable booy wax moom dans effectivement symptôme bii daf may dal lii ak lii daf may dal nga xam ne boo ko demee ba diagnostic bi expliqué wu ne ko yow lii nga am après da nga koy expliqué nag comment traitement souvent nag traitement psychothérapeutique la quoi xanaa psychothérapie yi dafa bëri ay ay sous parties. léegi nga xam ne peut-être ils ont des visions parce que je pense que y a des gens aussi quand. quand ils sont malades aussi ils peuvent voir des choses yooyu yooyu kay kay que ñu ngi dégg dara am na ku leen di chuchoter quelque chose wala ñu ngi gis ñu ngi gis dara wala wala dañuy nekk ci beneen environnement bu bokkut ak ñoom fa ñu nekk noonu lay demee exactement non non non non en fait c'est quand le délire est là mën na nekk un délire c'est-à-dire booy délire comme ni nga wax da ngay gis saay na la carrément maa ngi dégg baatu telle personne baat bi lii la may wax ci làq bii la ma koy làqee mi ngi may wax ma def lii est nekk est-ce la waxee nga def lii da nga def mu ne des fois du ko def parce que maanaam nekk lu baax mais des fois euh, euh, ko changer li ngay yëg yëpp da nga dëgg la gis mhm. ñoom noonu lay demee quoi bu fekkee délire boo xam ne ay hallucination parce que délire dafa bëri mécanisme quoi mais mécanisme boobu nag moo ëpp moo ëpp moo rencontre quoi c'est day dégg day des fois a nekk sa fois mu lay décrire damaa gis yàlla wala damaa gis malaaka wala dama gis jinne mu décrire la ni mu koy gisee ak ni mu koy yëgee ak li muy wax ak moom ni muy communiquer des fois kii mu gis sax koo xam ne décédé na mu koy wax quelque chose mu koy tontu yenn tontu bi ngeen di gis mais moom mi ngi waxtaan ak li muy gis mais loolu trouble bi ñu traité la souvent nag moom faj yenn ba ci yàgg ngeen ne ngeen ne ngeen ne accompagnant yi wala ki ngeen di faj vraiment lii du médecine mm-hmm. dem leen seetiwaat maam yi et cetera et parce que vraiment euh, quand on Sénégal voilà fii Sénégal li ñuy wax ne li ñuy li ñuy wax ni euh, comme li nga wax sànq